ci nga xam ne moom moo tax kon ba moom yeegul yàbbi euh, nekk dina yàbbi fii suba wala gannaaw suba lu mu ci mënti doon mën nañu wax ne fi nga xam ne moom mooy këram ni ngay def bu ñu la dàqee ci ab boo xamante ne dangaa bokkoon ci ñu ko fonde ay nit ñëw di la masaw wala ay nit ñëw amul ay membre yoo xam ne bokk nañ ci biir parti bi di APR ñëw jàppale Moustapha Cissé ci li nga xamante ne tey moom moo tegu ci kawam maanaam dàq giñ ko dàq ci parti boo xamante ne ba mu ci nekkee ak léegi daanaka mën naay ati at kon Alaaji Mansour loolu lañ fi mën a nemmeeku muy kër Moustapha Cissé Lo di diwaan bi nga xam ne fi la dëkk koñ bi ak biir këram ay mbokkam sax wala waa këram danoo tëju ci biir moom it nee nañu mi ngi ci biir amul dugg amul génn tekkiral daal la ñu fi nemmeeku loolu mooy kon li nga xam ne moom moo am ginnaaw commission de discipline bi nga xam ne tey jii suba dajaloo ko ci bi parti li waral jële gi ci parti bi nag ñëpp xam nañu ko ay kàddu ñu wax ne moom daf koy yëkkati teg ko ci ñaar ñoo xam ne ñoom la bokkal parti muy kii di Farba Ngom ak kii di Yakham Mbaye ah, Fatou Abdou Ndiaye kon euh, foofu gisoo fa ay militant wala ay soppe yoo xam ne dañoo ñëw pour jëm ko jëm ko soutenir ah? xam na xëy na guddi tax alaaji amul benn militant amul benn membre boo xamante ne xàmmee nañu nga bokk ci parti bi nga xam ne moom mooy APR nga ñëw pour jàppale Moustapha Cissé Lo mën nañoo wax ne fi mu toll nii moom ak ay njabootam ñoom ñoo bokk li nga xamante ne moom moo am tey di dogal bi nga xam ne jël nañu ko ay doomam ak ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ko jege tey nekk ci këram saa su ne ndax dugg bee génn bi sax boo waxee ñun la dañuy noppalu naam bañ ñu taskatu xibaar yi ñëw ndax ñoom ñu ouvert lañ ñeneen ci taskatu xibaar yi waaye nekk ci période xam ne faaw ñu noppalu faaw ñu xaar notification bi nga xam ne jóg na ci commission de discipline bi door a mën a yàbbi ci mbir yi kon mën nañoo jàpp ne amul benn dem ak dikk amul benn calax-calax loo xamante ne nemeeku nañ ko fi pas de mouvement lépp def na tekk tekkaaral fii nga xam ne moom mooy kër Moustapha Cissé Lo Mata Abdou Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax alaaji ginnaaw jaajëf alaaji ginnaaw dàqut ka moom Moustapha Cissé Lo ci APR nag gis na ñi nekk na parti boo